Euh, la succession euh, probable du PASTEF dont on parle mm-hmm. tous les jours mm-hmm. parce que nous avons koy mm-hmm. actuellement leader dafa euh, également grève de la faim Nous que nous d'ailleurs au passage nous avons signalé que ni ki nga xam ay prétexte wala hmm. boog ay raison yoo hmm. xamante ni moom moo tax mu mu dakkal loolu parce que hmm. jot na ci ndigal jot na également li nga xam moom moo di ndigalu euh, xalif bi à travers euh, benn émissaire am di ko koy euh, jàllale mu mu mu xamle ni c'est très normal ko mu dakkal ko parce que imaanam ak euh, aussi ñu ko ñaan permettre na mu mu mu dakkal ko. Mm-hmm. Ousmane Sonko également ñu bëri ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy xaar également mu mu mu mu dakkal tamit grève de la faim parce que grève de la faim bi bon à la bon. ñëpp mm-hmm. ñëpp moom lañ koy moom lañ koy demandé. mu mu dakkal ko parce mm-hmm. que. mbir la mo xam mhm. voilà lim lay yàqal dafa bari mhm. voilà donc loolu xëy na moom il en est conscient parce que il est responsable xam na bu baax li nga xam ne ci nekk mhm. donc xëy il prendra peut-être euh, la la la hauteur pour pour pour pour xool aussi nan la koy dakkalee en tout cas moom la ko ñëpp di ñaan donc ñuy waxtaanee li nga xam moom moo di succession parce que euh, dafa mel ni ñu ci bëri ci ñoom bon ñii dañuy wax lii ñuy wax lale kii di jaal Diop jaal Diop Diallo Diop euh, ñu bëri xam nañ ko ci euh, RND mooy rassemblement national démocratique bi nga xamante ni moom la euh, kii jiite woon kii di Cheikh Anta Diop mu nekkoon ak moom di di xeex ci mm. li nga xamante ni aussi moom moo nekkoon opposition d'alors mm. dans les années soixante donc mu nekkoon également ci ay jafe-jafe yoon moom voilà ab parcours am ku ko xam xam ni euh, homme de gauche la bu bu bu bu bu amoon xadar bu mm. amoon pas-pas ci li nga xamante ni moom lay def mm. raison pour la laquelle d'ailleurs moom moo tax mu continuer euh, nekk ci dynamique boobu ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di Pastef mm. euh, la dernière fois le le week mu mu ngi jàll fi nga xamante ni moom moo di Sud FM di fa wax waxi succession ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko mm-hmm. d'ailleurs moom am beneen alternative bu hmm. fekkee Ousmane Sonko du nekk candidat ce que les autres euh, ont formellement rejeté hmm. ku ci mel ni assemblée nationale à travers leur euh, porte-parole ki nga xamante déjà mom moo fa ëpp lu mu fay jël cadre muy Ayib Daffé l'homme de l'homme de Sédiou hmm. également euh, le chargé de communication nationale di El Malik Ndiaye ñom nee carrément que ni ñom ils sont contre candidature parce que Ousmane depuis le temps c'est plan B. C D X plan plan B mais pour man Samba il faut se préparer à toute éventualité. Mhm. en politique bon mhm. il ne faut jamais dire voilà mhm. radicaliser ci ci option parce que. Euh, politique dafa dynamique. day quoi. dañ du rek du du du du donc avenir politique gu Ousmane Sonko réservé mhm. donc il faut se préparer. Mhm. parce que amener une yu bëri yoo xamante ni xëy na man, na man, na mën na mën xew ci bi xamul. parce que procédure bi déjà mu ngi mu ngi ngi suivre son euh, son son son son cours. Mhm. Euh, li nga également moom mooy. Euh, peut-être candidature bi ñu war a mën a jël teg ko. ñu bëri ñu ngi doon wax ay ay wala euh, peut-être le l'homme de Ndiaganiao là euh, mooy. Euh, Faye euh, voilà Faye Bassirou Diomaye mm. donc amna ay talent amna ay bon nous xamante c'est des c'est des hommes de c'est des hommes de. c'est des hommes responsables qui mm. peuvent porter mm. peut-être xëy na le flambeau mm. gars yi nag Ousmane Sonko leen tàmm parce que moom la ñuy gis au devant de la scène te courage xëy na bi ñuy gis ci moom gisuñu ko ci yeneen leaders yi loolu aussi c'est c'est c'est une réalité parce que ni mu imposé woo ak ni mu ni mu ni mu nekkee koo xamante ni c'est un homme vraiment euh, avec un discours euh, franc radical mm-hmm. loolu pratiquement gisuñu ko ci benn acteur bu nekk Pastef mm-hmm. donc loolu xëy na bu fekkente ni ñoom dem nañ ba bëgg euh, maintenir candidature Ousmane Sonko ak situation euh, judiciaire bu mu mënti nekk rek mm-hmm. donc c'est parce que xëy na peut-être loolu la ñu jàpp mm-hmm. loolu dañ leen koy nangul mais Diallo Diop moom comme magi Pastef la bokk te en plus euh, am na kàddu ci biir partie bi donc il il est très normal wax li nga xam moom moo di suweem par mhm. rapport ak succession li nga xam moom moo di Ousmane Sonko mhm. bon ñu rappeler que ni nag parti bi euh, dañ ko dissoudre administrativement. Mhm. loolu moom c'est c'est c'est est un rappel qu'il faut faire. c'est même la question que je vais parce que vous dites ko dissoudre ñoom ñu mën a am bëgg am plan B alors war a dem ci ban bannière. parce que parce que dañ ko dañ ko dañ bon man pour man Pastef am na ñaari option mm. soit mu mu mu mu re refiguré wu reconfiguré wu. Mhm. ci beneen beneen appellation. Mhm. am peut-être neneen nu ñu feneen fu ñu euh, beneen bannière boo xamante ni ci la ñuy demee. Mhm. na nekk euh, benn entité boo xamante ni entité bu bees lay doon. walla ñu daal di peut-être euh, jël seen candidat jëlee ko ci yeewi askan bi bon mu nekk candidat boo xamante ni autour de yeewi askan wi lay doon te loolu sax xëy na peut être moom mooy gën a avantagé pour ñoom mm. parce que yeewi askan wi déjà benn dynamique la bu nekk bu bu bu nekk en place boo xamante ni mu ngi évoluer jot nañoo dem ay jongante daal di koy daal di koy gagné donc c'est très normal que ñu continuer seen dynamique xëy na à travers donc euh, yeewi askan wi sous la bannière de ñu ñu ñu xool kan la ñuy euh, voilà jiital jàppale ko pousse ko mm-hmm. parce que loolu xëy na moom moo gën a avantagé ci ñoom mm-hmm. mais mais est-ce que tu côté boobu hein? est-ce que il euh, y ou bien Pastef mënuñu mhm. dem jël ben parti bu ko xamné c'est existant mhm. mais euh, parti bi demul ñu jël ko jël récépissé utiliser récépissé pour pour dire a doxal non c'est-à-dire esprit Pastef mhm. esprit Pastef mu ngi dox ba léegi Pastef une philosophie mun existé na parce que même bu fekkee tas nañu parti et cetera les militants sont là mm-hmm. les responsables politiques sont là mm-hmm. maintenant nous xëy na am nañ am peut-être koo xamante ni gis nañ ko mu mu yor seen seen doxalin ci mm-hmm. politique mu yor peut-être xëy c'est euh, même euh, démarche nous li ñuy doxee au sein de PASTEF bu ñu demee xëy peut-être engagé wu ak ak ñooñu waxtaan ak ñoom xëy tek ay euh, ay charte yoo xamante ni dinañ ci mën a liggéey xëy loolu dina mën a nekk mais lool possibilité possibilité la également pour ñu ànd ak peut-être koo xamante ni porté na seen vision alors mais si instant bi le président Ousmane Sonko dans l'incapacité maanaam mu def yegal li nga xamante moom moo nekkoon yéene lu tax mu def euh, plan B comme ni ko euh, waa ji daal di euh, mbérale comme Ousmane Sonko du mën a dem Mhm. ñam plan bi boo xamante ne moom c'est vrai que da ngay wax ba léegi esprit de mu ngi fi mais mhm. rien rien n'empêche keneen ñu le ko moom mu doxal mbir mi mhm. ba tey rek ñu nekkoon ci ginnaaw Le Sonko delluwaat nekk ci ginnaaw waajal non non plan B bi moom il faut le comprendre parce que c'est un légaliste naturellement mais bu waxee plan B c'est parce que jàpp na ni Pastef même bu fekkee administrativement dissoudre nañ ko mais les voies de recours sont là mën nañ topp mbir mi topp ko ci yoon mhm. ba peut-être am gain de cause mhm. parce que ba léegi mënuñu ne ñoom à leur niveau duñ ne Pastef dee na naax saay na xëy na ñi acté loolu mhm. à travers le ce décret ñoom ñoo koy wax mais buñ ko toppee ci yoon ba am à à quelques mois de la présidentielle waaw mën na nekk mm. mën na nekk parce que bu fekkee déclenché nañ procédure bi euh, te aussi bon xam nga élection yi aussi beneen ambiguïté daf ca nekk parce mm. que kenn xamul ndax Euh, dina dina dinañ ko tenir à date échue ou pas. ah mais ba c'est c'est à date échue hein. ba fii il n'y a ba fii ba fii mon mon mën ah. mais c'est-à-dire paramètres ni nara nar hmm. en en en en jeu ba pare chambouler affaire yi bari na. Hmm. déjà parrainage bi mu ngi nii xam nga. Hmm. am na am euh, le fait que. voilà amna na loo peut-être changer nañ ko ci d'ailleurs le 27 lay lay lay tambali au lieu du 28 bi nga xamante weesu nañ donc. ñoom au niveau de PASTEF jàpp nañ ni ba léegi war nañ mën a def seen i seen i seeni seen i recours def li nga xam moom moo leen war li leen yoon may mhm. ba ñu ba ñu am gain de cause parce que administrativement loolu lañu ñu acté mhm. maintenant ñoom à l'heure parce que moom ba léegi waxul waxu mhm. PASTEF existeetul Diallo Diop ba léegi waxul loolu donc ce qui veut dire que euh, au niveau de PASTEF idéologie bi mu ngi fi ñoom jàpp nañ ni ba léegi Euh, xeex bi dañ mhm. koy com dañ koy continuer dañ koy continuer mener mhm. donc euh, pourquoi pas ñu garder tous les espoirs mhm. ba pare réunir autour de d'un idéal moom mooy seen seen seen candidat parce que ñoom loolu lañ jàpp instant bii nii actuellement bu ñu xoolee actuellement Ousmane Sonko à leur à leur euh, pour ñoom c'est un candidat toujours éligible. d'accord donc loolu moo tax mën nañu jàpp ne y a des voix discordantes ci biir parti bi. nii ñii jaar nii ci choix